ndax yàlla def na sa digg ak moom mi di sëriñ Cheikh Abdou xam naa ko bu baax ndax jëkkul ci liggéey bi loolu boolewu leen ndax ànd ngeen ko jëkk te booba nekkagu ministre kon nag bu yàlla defee mu dem ba loolu agsi mu indiwaat la fi andi la ci Cheikh Mouhamadou Mountakha andi la la yóbbu ci kër Sëriñ Sidi loolu kon mooy ubbil na la fépp kon nag ñi ngi bég bu baax a baax te la xamal ne wala fii dañuy wax ne aw askan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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh